salaam sama gars yi nuyu naa leen ziar leen j'espère que yéen a am jàmm man maa ngi cool sama gars yi Sadio Mané ak waa Bayern de Munich Euh, qualifié nañ ci quart de finale Ligue des Champions gannaaw bi nga xamante ne éliminé nañ euh, PSG gannaaw bi nga xamante ne nañ euh, Paris Saint-Germain 2-0 mais également kii di Sadio Mané def na grand retour ci Ligue des Champions gannaaw bi nga xamante ne toog na ay mois yu mois footballu ko donc gannaaw bi nga xam ne dafa blessé woon ñëwaat na ci Ligue des Champions bi mais match bi match bu vraiment mais gis nañ que ne à mon ay occasion côté de côté du côté de PSG vraiment gis nañ occasion yo xamantene raté nañ ko euh, mais wa Paris Saint-Germain match bi dafa metti won ci ñom parce que Bayern de ñëw andi li nga xamantene moy sérénité ak dal gu mat donc dal di duggee abnégation ak engagement bu mat seuk ci match bi motax euh, c'était très difficile pour les euh, les parisiens euh, motax tax ñu trouver ki ki nga xamantene moy Kylian Mbappé dañu tour ki ki num mu dañu sak également ki nga xamantene moy Lionel Messi ba kenn mënu le a trouver donc lolu motax mu xawone met ci Paris parce que wa Bayern fexé nañ ba ba ba utiliser largeur du terrain nga xamantene à chaque fois action bu ñu am dinañ mëna a mais également dañoo euh, dañoo fat li nga xamantene mom mom moy moy moi donc dañoo fàtte eli ba nga xamantene Paris Saint-Germain euh, duñu mëna dem euh, ci kanam donc également ci bataille de milieu de terrain bi gis également wa wa, waa Bayern gagne ci gagné également match bu neew bu difficile la woon ci wa Paris Saint-Germain motax vraiment il nañ sans contestation mais Bayern mu nekk équipe bo xamantene ils sont très efficaces motax deuxième mi-temps bi donc daal di dugal li nga xamantene euh, moi moi moi 2-0 mo moo euh ñabri euh, ak choupo donc mu nekkoon de deuxième mi-temps bi Bayern ñëw mané ko carrément suñu l'international sénégalais bi di Sadio Mané nak mom dafa duggu donc ci quatre-vingtième minute de jeu le euh donc dugg def na li waron def mais malheureusement gis nañ sax na hors jeu donc encore une fois Sadio Mané dafa dafa ñak sens parce que depuis bu mu ñëwee Bayern gis nañ ay buts hors-jeu yu bëri la fa dugal hein donc euh, et que voilà quoi pour man action boobu war ma mënon na baña naa doon hors-jeu bu doon roi Sané daf ko teel passe bal bi mais à chaque fois à chaque action dañuy gis Sadio Mané daal di jënd mais le roi Sané day yéex a passe loolu tax euh, dafay dafay hors-jeu donc bu passe yi yéexee rek hors-jeu lay am donc loolu la won quoi mais Sadio euh, vraiment commencé na ñëwaat ci rythme bi et que voilà quoi blessure bo fi ñëwee ndànk-ndànk lañ lay. Euh, lañ lay lañ lay dugal et j' espère que ne week-end bi ñu dina doon titulaire seen seen match yi championnat yi kon li leen andi loolu dina wax wéy di like wéy di commenter jaa ngeen jëf